mbokk jullit yi ñu seetaan ginnaaw ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu nangul ñu sunu koor nangul leen seen koor waxtaan bi leen di tey mooy fadlul infaqi fi ramadan ngëneel bi nekk ci sarxe ci weeru koor mbokk yi eh, abdallah ibn abbas daf ñu nettali xadis boo xam ni ku nekk ñun war naka teewlu eh, xam li ci nekk jëfe dafa ni kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwada annaas وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن ni Ibn Abbas dafa wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon yiwoon ñëpp moo gënoon baax ñëpp moo gënoon mën a sarxe ñëpp waane mi ngi gënoon baax mi ngi gënoon yëwan mi ngi gënoon mën a sarxe ci weeru koor bu Jibril ñëwee ñoom ñaar ñuy nafara alquran mu ni ci xadis boobu wa kaana rasulullah rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwadu Eh, bil xayri min arriixi almursala mu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo gënoon yëwan ngelaw li indi taw ni kon mbokk yi ku nekk ñun bu déggee wax jii dafa war a teewlu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo gëwoon gënoon yëwan ñëpp waane mi ngi gënoon yëwan ci weeru koor loolu li mu tekki mooy ku nekk ñun war na lu ba nga def loo xam ni ci mbaax ci weeru koor luy tax lu nga ro yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni kon yonente da doon sarxe weeru koor la gënoon bëri li muy sarxee nañu góorgóorlu ñu nit ñuy sarxee ci weeru koor mbokk yi eh, ku nekk ñun war na teew teewlu dañ doon ndekki di añ di reer ndekki añ ak reer añ amatul war nañu jagleel lañu doon añee ñu sarxe ni kon lii ku nekk ñun war ka war ka teewlu ni eh, bokk na ci nag sarax boo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko waxu rek ci koor waane lu am solo la nit ki teewlu ko ci koor mooy man fattara saaiman kaana lahu min al ajri mithla ujuri saaim gayra annahu la yanqusu min ajri saaimi shay'a nii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu xamal ni képp koo xam ni jox nga lu ku woor lu mu ndogoo mu ni yàlla dañ la bindal yoolu kooru waa jooju wala ndaw soosu fekk loolu du wàññi ci kooram moom dara ni mbokk yi wax ji lu leer la loo xam ni dafa teg ni ñun ñëpp mën nañ ci jàppalante nit ki loo toog lu mu néew néew war nga ci woo sa mbokk jullit mën nga woo sa dëkkandoo bu ñàkk bu ñàkk na koo xam ne ku ñàkk la mu ñëw ndogoog yow ngir nga am yool boobu ni waxtu ndogu ni ñuy romb ci mbedd yi mën nga fexe ba nga leen di sarax eh, nga leen di jox tàndarma bu nu ndogoo wala nga jox leen ndox bu nu ndogoo ngir nga am yool boobu ni kon lii ku nekk ñun war ka teewlu ngir ñu roy ci yonent bi sallallahu mën nañu itti jagle ni bis bu nekk nga sarxe dara lu mu néew néew bu dee téeméer la wala fukki dërëm waane nga def ko ci weeru koor wu nekk nga def loo xam ni ci mbaax daawoo ko def ni kon loolu war nañ ko lu ñu ñëpp ñu xam ni ñun jullit yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy suñu roy waay bu ñu xamee xamelee ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mu doon def ci mbaax ci weeru koor moo moo ëpp li mu doon def lu dul weeru koor ñu nit war nañu góorgóorlu ci weer wi weer wu tedd nga xam ni lu ci nit ki def yàlla du koy fulandil ay yooni yoon nga góorgóorlu ba nga def ci mbaax loo xam ni daaw ko def koo xam ni weer wu nekk junne nga doon sarxe bu weer koor ñëwee na nga sarxe ñaari junne eh, koo xam ni benn añ benn ñam nga doon maye ci lu dul weer koor bu weer koor ñëwee nga maye ñaari ñam di ñaan yàlla bokk ñi dégg wax topp li ci gën wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.